okaay gis ngeen tey ñi ngi fii fi nga xam ne moo nekk tribunal pour le support de Ousmane Tounkara sénégalais yi ngi di ñëw ñëpp di ñëw di ñëw gaa ñaa ngi ñëw pour ma ne ni Ousmane Tounkara c'est leur frère so actuellement nii fii la ça va se passer ici euh, à New York City 201 Berwick Street pour wane ni Ousmane Tounkara he is not a terrorist pour wane ni Ousmane Tounkara ñun ñu ngi koy support te yaakaar naa ni sekkal li ñu ko waxal dëgg la ñu ngi ko support so everybody come on and join us over here Berwick Street ñu ànd ñu ñu àndandoo wane ni euh, li li ñu jiiñ suñu boobu def ñoo métti. production Sankara Mbaye you know tey la Ousmane Tounkara war a gis juge bi so sénégalais yi ngi ñëw ndànk ndànk ñi ngi ñëw ak doole so Ousmane Tounkara du terrorist he's not a terrorist okay he's not at all uh-huh, free him yes yes I you know terrorist du am lii free him he's not a terrorist free him he's not at all yes he's not so vous voyez sénégalais yi ngi di ñëw ndànk ndànk you know voilà l'arrivée de la femme de Ousmane Tounkara mi ngi soog a yegsi so gis ngeen pour wan leen ni rek gis ngeen sénégalais yi solidaire nañ ñëpp ànd ñëpp a tey. la femme d'Ousmane Tounkara et ses enfants vient d'arriver waaye gis ngeen tey ñu ngi fii ci courthouse bi ak Ousmane Tounkara ñi nga xam dafa war a bi tey. so mu ngi gis naa fi le grand Cheikh Thiam l' ambassadeur mais l' ambassadeur loo wax tey ci sa teewaay fii tey euh, ak ak ak ak euh, tey je crois que lu bis bu bis bu symbolique la fii. parce que c' une grande première. Mhm. c' est une grande première euh, sénégalais yi. ñu am c' est une grande première ñu am benn sénégalais bu ñu indi fii au niveau de l' immigration war ko juger. indi ko ci code bi fii sénégalais yi dajaloo de cette sorte musul am c'est une grande première dans l'histoire des États-Unis je crois que ci benn Guinée la musa amee muy affaire Mamadou Diallo bi li ko waral nag mooy euh, état du Sénégal par rapport ak activité yi yi fi amoon il a quelques semaines jóg nañu xool yenn activistes yi nga xam ne ñu ngi influencer sénégalais yi pour ñu jóg pour ñu xeex seen dëgg ak seen ak ak seen yelleef ñuy leen di diaboliser par rapport dëkk ñu nekk ci la ñu déposé benn plainte accusé ko de terroriste mhm. man nag dama jàpp ni combat bi c'est au delà c'est de Ousmane Tounkara ak l'état du Sénégal wala au delà de Ousmane Tounkara bu supporter benn Ousmane Sonko contre benn Macky Sall. Mhm. man je crois que bépp sénégalais bu nekk bitim réew. bépp mhm. sénégalais bu nekk à l'étranger war nga mën a jóg nga xeex lii parce que dafa nekk loo xam ne. dafa nekk loo xam ne. dafa nekk loo xam ni du caageenu jëmm Ousmane Sonko Ousmane Tounkara bi nga xam ne da doon ñaxtu dafa nekk képp kuy sénégalais nekk bitim réew te bëgg doxalinu sa réew mu jëm ca kaw war ngaa mun a jóg xeex li parce que bu ëllëgee beneen état lay doon ak contre beneen sénégalais que ça soit muy Macky Sall wala muy Ousmane Sonko képp kuy sénégalais nekk bitim réew di wax loo xam ne naka su dul noonu la wala nga wax li nga xam ne moom mooy li gën ci réew mi te neexul état dañuy am capacité wu jël si lef nga yes saay gis ngeen tey ñu ngi fii ci New York City pour support our brother Ousmane Tounkara wane ne li nga xam ne état du Sénégal moo ko ko jiiñ du dëgg he is not a terrorist ndax bu doon terroriste terroriste du say mbokk génn you know góor ñi jigéen mag ndaw ñëpp ñëw pour supporter ko donc nag lii moo fa xew muy Cheikh Coly doomu Casamance bi nga xam ni il a été assassiné par l' état du Sénégal donc pour vous dire que ni on est là de tout cœur avec Ousmane Tounkara te ci kattanu suñu borom euh, la vérité finira par par par vaincre Uh, this is Moussa Moussa Versailles Moussa tey ñëw supporter his brother uh, Ousmane Ousmane Tounkara Moussa tey lan nga wax ci bés bi. ah mais euh, just kontaan kontaan euh, vraiment New York yëpp ñëw na nii nii jóge nañ fu nekk. ñëw pour euh, vraiment taxaw devant injustice bi Ousmane Tounkara ñu ñoo nekk fii à New York ensemble on sait tous que il n'est pas un terroriste état nag day dox si lu dëgg. sa citoyen yi su nekkee même à l'étranger am free of speech we all have a freedom of speech wala mën a wax lu nekk suñu xol suñu xel loolu mooy démocratie day am ñu ànd am ñu àndul mais nga jël sa citoyen yi ba ko accuser ne terroriste la pour ñu jëlee ko fii tëj ko tooxoo ko tooxoo ko njabootam ñëpp xam nañu ku fi nekk fii am nga sa ginnaaw boo bàyyi Sénégal étranger nekk ñëpp on soutient des santen et des centaines de personnes au Sénégal ñaata milliards yu dugal Sénégal nga bëgg jël sa doom nekk étranger di liggéey am seen njaboot fii il a cinq enfants ku si gën a ndaw ki huit mois la am xale bu ndaw ñu jël papam dugal ko si loo xam ne du dëgg du yoon tëj ko ne terroriste la c'est pas juste. c'est pas juste juste injustice la baaxul si dëkk na nit ñi wax na si nit ñi wax qu'ils arrêtent ay citoyen la ñuy comme ñëpp te citoyen plein on est fatigué nañu arrêté voilà laa si wax quoi ci bëgg Sénégal bi du ay problème de Ousmane Sonko. ci bëgg Sénégal laa ko xamee. parce que tamit mënu nekk dans un pays ñu ne freedom speech ku ne da war a wax li nga bëgg a wax ñu ne doo ko fi waxee ñun xam nañ ne état dafa am doole on n'en disconvient pas xam nañ ne état dafay signé ay accord amul problème mais fii ñun ñoo fi nekk loow bi daw fi dawul Sénégal xam nañ lan mooy ingérence en droit mais bu ñu la accusé de terrorisme yow yaa war a prouver ne doo terroriste foofu la coow li nekk il faut ñu essayer faire comprendre aux gens que ne Ousmane Tounkara du terroriste ñun ñu jàpp ñu ñu tëdd ñu fii jël amul problème mais waruñu may Macky Sall le droit d'amener à qui il veut au pays parce que da nga wax lu ko neexul dans une démocratie normale il faut qu'il y ait de l'opposition loolu moom na ci ñëpp bàyyi seen fii ku fi nekk di bind Facebook wala ngay wax ci rajo tu es en sursis xeex bi boo génnul xeex ko ëllëg boo amee problème kenn du la xeexlee man ñu fi nekk laa naw de ñu fi nekkul I give a fuck. Thank you. Yeah. non tey tey dama kontaan tey moom vraiment. Euh, attitude bi may indi sax neexuma bii bii neexuma parce que duma moom bëgguma bii bëgguma bii mais bi mooy il faut ñu jóg xeex parce que lii lii dafa war a xewi daal lii dafa war a xewi. xewi na. li dafa la xew li neexul ci xol juróomi doom juróomi doom ak jabaram ah come on man ci ay come on c'est triste sama xol neexul day quoi dafa ko neex gis ngeen Sénégal yi ngi nii ndeysaan Ousmane Tounkara xoolal gars yi ñu ngi taxaw ci oto bi ndeysaan bàyyi leen ko mu jàll bàyyi leen ko mu jàll Ousmane gars yi kontaan nañu Ousmane gars yi kontaan nañu Ousmane gars yi kontaan nañu non non garaawul garaawul garaawul non non non garaawul garaawul na ñëpp puus ndeysaan Ousmane Tounkara gis ngeen Sénégalais yi génn nañu pour wane Ousmane ak yi nii ñu ngi koy delluwaat en prison parce que la la l' état du Sénégal moo def pression bu mag a mag a mag pour ñu indi su Ousmane mais comme fii dëkk droit la comme fii dëkk droit la nee na dañuy may beneen deuxième chance ñu wane ni Ousmane du terroriste du ñu wane ni ñu wane ni Ousmane bu nekk demee Sénégal dafa nekk en danger sénégalais yaa ngi nii di jooy jigéen ñee ngi jooy xale yaa ngi jooy mag ñee ngi jooy. gis ngeen li nga xam ne moo xew gis ngeen police ndeysaan Ousmane Ousmane Tounkara gis ngeen ndeysaan oto baa ngi ni taxaw ndeysaan xool leen paa yi góor jigéen mag ndaw ñëpp a ngi jooy ñëpp jaaxle nañ ndeysaan xool leen lii l'état du Sénégal xam ngeen ni seen yaram war daw de yéen boo leen demee bay accuser seen i doomu réew naan terroriste la ba tey ñu ñëw ci dëkk droit bi ah xam ngeen ni seen yaram war naa daw joxoo leen ñu ñu lekk joxoo leen ñu ñu naan tey ñu ñëw beneen réew pour am am fa teraanga ngeen ñuy accuser ndax d'accord ñu ak yéen donc y a un problème y a un problème alors que le problème est très sérieux gis ngeen état du Sénégal moo waral lii yëpp Ousmane Sa Ousmane Tounkara dañ ko accusé de terroriste gis ngeen gis ngeen. ñu ngi baaxul yow ay nit ñu bon lañu parce que li baaxul. ndeysaan li baaxul meen kii dafa am njaboot. ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan thank you ndeysaan gis ngeen. gis ngeen xam nga ni terroriste du am lii. terroriste du am lii. terroriste du am lii. yesaa yesaay gars yi gis ngeen tey ñoo ko gisandoo finalement avocat bi dugg ci biir gis nañu juge bi ak Ousmane Tounkara waxtaan nañ ci seen biir so dañuy def the next hearing the next mooy dañoo jël beneen jour boo xam tamit dañoo nar a ak juge bi parce que gouvernement américain bi tamit dañu bëgg a yóbbu Ousmane après parce que gouvernement Sénégal ñoo teg pression teg pression bu metti mais fi mu ne nii nag comme Amérique dëkku démocratie la dañ lay joxaat yeneen chance te yeneen chance yi li koy gën a waral mooy lii gis ngeen mbooloo mi ndax Ousmane bu doon terroriste terroriste du am mbooloo mu mel ni ñëw taxaw ci digg tribunal de de New York ñëw taxaw di expliquer soo fi mu ne nii joxaat nañu beneen chance mbooloo mi gën a takku ñu signé ay lettre expliquer li nga xam ne moom lañ xam ci Ousmane ci kattanu suñu borom yeneen information yoo leen soxla rek dinañ leen ko indil